njëkkal moy rek di wane suñu suñu mbégte ci add gi nga xamante ne bi ñun ñëpp àndandoo nañu ko muy ñëpp nga xamné rek ñu ngi ànd di liggéey ak président Macky Sall muy euh, ñi nga xamante ne bi ñoom la doon liggéel mu ñu nekkon ci benn bokk yaakaar ak ñi nga xamné ne ñoom ñoo ñëw bes également ngir and ak mom ngir ñu liggéey Sénégal ngir intérêt Sénégal muy le président euh, Idriss Seck muy le président Moustapha Niass muy madame Aminata Mbengue avec le PS et tous les autres parti de la mouvance tey jii ñoo ñëpp seen i njaboot ñu ngi fii tey ànd ak ñun ñu bokk yendu di xàccandoo di dóorandoo ñu ànd nag wër li nga xam ne moom le président def ci dëkk bi parce que ñu bare bari dañuy wër di siiwal naa président Macky Sall dafa dara Touba dafa dara Touba te loolu wut ak li nga xamante ni bii mooy ne nekk barki démb wax nañu ne li muy def ci dëkk bi Euh, li ko yées juróom-ñett fukki milliards bëriwut loolu dañ koy mën a lim boo jëlee tël yi nga xamante ne bii mooy trente bi wër daanaka douze milliards huit cent nga jël li nga xamante ne bii mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci kër yi man neuf milliards sept cent millions nga jël li nga xam ne mooy assainissement taw bi loolu itam muy xaalis bu bëree baree baree bëri am na lu ñu ci defoon lu bari yokkaat nañ ci un milliard cent ngir gën a yokku conduite ngir yóbbu ko ba fa nga xamanteni modi modi di di nga jël ci walu santé am ci luma 32 milliards ci ben hôpital amaat ci 6 milliards ci biir hôpital madlabu Matlaboul bi te ma taxaw ci 32 milliards bi nenañu nañu Afrique hôpital menon noonu amu fi te bu paré buñ ubbi ko ba nit gis ko lolou dana tek ci bët ndax limay wax fogg na mi ci suñu karam kon ñëpp nañu téy lolou ñu denc ci ko mu mat lu mat 300 lits yo xamné sax man nañ ko yok ba mat 500 lits

loolu également pour renforcer sécurité dëkk bi parce que dëkk bi de rëy fenn fu nit da fay jóge également ñu ngi may signaler les postes de santé et les centres de santé donc loolu lépp bu fekkente ne bi boole nga ko fay lo xamante ne bii doy alal bi takku té loolu motax suñu sunu yi nga xamné duñu waxal ku dul yàlla du dul aussi du leen tax wax motax waxtu bu nek ñu di ko sant di ko gërëm loolu ci motax tax sëriñ bi ne ko rek yow defal li ngay def té bul gess bul sét nit ñi

ci ay wax yoo xam ne ay waxi kasaw kasalu yoo xam ne teguwul fi benn barab dañuy jóg nag loolu ne leen mbir la demee ñay wax loolu nag waxuñu ak parce que a wax ci mais ñun intéressé ñu le peuple sénégalais bi nga xam ne tey mi ngi ñu kat ci réalité bi fi réalité bi fi réalité également bi dans tout le Sénégal boo demee Dakar investissement milliards Casamance c'est la même chose

ndax ak suñu partenaire politique ngir nag taxaw fësal bilan bi nga xamante ne mi ngi ci mi ci dëkk bi te kenn ku nekk bu ko fësalee ci commune ba mu dëkk kenn ku nekk bu ko fësalee ci département ba mu dëkk dinañu ne président li nga xam ne def na ko ci réew mi ci diggante ba gàtt bi kenn xamul mu toll waaw xam nga dañu nekk ci contexte bu bu particulier ndax covid 19 bi dafa ñëw daaw daanu ci soon xaaru ko woon euh, ñu jël lu mat mille milliards ci bi defaat ko feneen loolu am ay chantier yoo xam ne xañ na yeexal na ko mais plan de relance bi ñu teg tax ba tay ji chantier yëpp reprendre naan na ba alhamdulilah nit ñi ñi ngi ñu liggéey ba fi ak dir bu gàtt bu ci yalla andi na yu si bëree bëri nañ ko réceptionné mais ñun et puis visite bi également ci ci bit bobu lañ ko defee pour xam li nga xam ne moo xew sur le terrain lan mooy dox lan moo doxut su boobaa danañ xam ñun ci sunu liggéey yan xal yan conseil eh, yan euh, xeltu lañu ñu mën a joxe pour que kat changement am ci yenn yi ngir yëf yi gën gaaw ngir lan lu nekk moom na mu ko yéenee woon te xañ ne aussi ñi ko yore aussi ñoom noonu lañ ko bëggee sunu borom dimbali ñu ba mu demee noona parce que ñun ñëpp ñoo ci war a bokk benn taxawaay kon loolu aussi bokk na ci objectif li nga xamante ne bii mooy visite bi te aussi ñun foofu lañ mën a féetee dëkk bi gis nga c'est pas pour nekk ma ànd ak un député de l'Assemblée nationale. moom itam bu lépp lu fa war a plaider dëkk bi Touba ak askan wi bu soobee yàlla dana ko dana ko def ci ci fànn googu. pour dire que loolu lépp rek dañ koy def non pas même pour di def politique ndax li dépassé na politique parce que fii ñu nekk nii tey jii eh, APR moomu ko Sénégal moo ko moom kon li ñuy def dañ koy def pour les citoyens sénégalais dañ koy def également pour askanu dëkk bi ak pour mboolem askanu réew mi yëpp. li nga wax léegi ci la problème communication am na ci. Mm. parce que xam nga jëf-jëf ju day nii ay nit jóg nasaxal ko ne jëf ji amul dox ba gëmloo ko nit ñi. ba nit ñi voté ci loo xamante ne bii méngoowul ak li nga xamante ni mooy mooy la réalité loolu am na ci donc c'est surtout un problème de communication am si ñeneen ñoo xam ne nag ñoom sax dañuy jóg nag di xeex te malheureusement nekkuñ sax ci politique nga xam ne kon ñoom li ñu def sax peut-être dañ cee waroon a maanu di di di jaxase xel nit ñi ba nit gëm yooyu yooyu nag ci yooyu nag moo tax ba ñu jóg am taxawaay bii taxaw ngir ci ci na googu lépp loo xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy li méngoo ak réalité li mengo ak deug ñu wan ko nit ñi ba ëlëk bu ñu def seen choix ñu mën ko def de manière éclairée mais tek ko sur des éléments factuels objectifs ba nga xamante kenn du leen mën a nax kenn du leen mën a dugal ci ci ci giraawaal yi. tey ji am na 20 km d'électrification yoo xam ne dugg na fa Pakasen mi nga xam ne projet 9 milliards la dugal na fa également benn benn benn tali euh, ndox mi également ma nga fay dem pour adduction d'eau yi loolu aussi Pakasen am na liggéey boo xam ne mi ngi ko ci euh, mi ngi ko ci liggéey. te loolu rek mooy ñun li ñu bëggoon ñu di ki sant na ki nga xam ne mooy borom dëkk bi di la xalifa de des mourides parce que moom aussi eh, loolu daf ko yitteel ndax xam na ne fu waay mën di jóge dikk ci dëkk bi Serigne Touba moo la yëkkati te daw ay jafe-jafe fa nga nekk parce que amoo téléphone amoo ndox amoo courant nawet bi neexatul nga naa daw ñëw Touba ndax mooy mooy mooy mooy daw làqu gi loolu mën leen fi indi Serigne bi xam loola. ba tay ji lepp lo xamne jogati na mu ne kat ñom nañ leen jox seen wal autorité politique nga xamne aussi ñoy yor réew mi ñoom mosuñu bëgg lenn lu lool ñom itam lool lañu sawar ci lool ba tay ji tey changement am na mo tax lool ñun bañ accompagner ak communication mi ko wara accompagner la ba tax tay ji ñu jogat ndax xam nga da ba mo bu ngeen xoolee kenn mu a def benn activité parce que dañu tëjoon réew mi am na sax ñu ko doon def mais ñooñu bu leen neexoon duñu mëngu ak yoon mais nañ ñu and ak ki nga xamne mo moo jiite mi mu ne na ngeen conformer wu ci li ñun ñu jóg di jalgat ci yoon wax mais tay ji ubbi nañu réew mi yëpp kon ñu reprendre les activités politiques lii mooy li ci euh, li ci jiitu biir koor gi danañ def bis bu mag boo xam ne bisum ndimbal lay doon te ndimbal loolee duñ ci fàtte gox yooyu ngay wax. bu loolu jàllee ba ñu wari fas ñu amal ay tournée ci biir mbooleem village yi nekk ci dëkk bi ndax Touba commune la boo xam ne c'est plus c'est près de 94 villages fu ne fas nañu fi ne teg sunu tànk gisanteeg imam ya fa nekk gisanteeg sëriñ sa fa nekk gisanteeg chef du village ya fa nekk. gisanteeg ndaw ya fa nekk gisanteeg jigéen ña fa nekk gisanteeg mag ña fa nekk waxtaan ak ñoom xam ma lan mooy seen ay jafe-jafe luñ ca mën a saafara ñu saafara ko luñ ca mënta saafara bu ca mairie mënee dara ñu àggale ko ci moom lu ci mairie mën dara bu waree àgg aussi Dakar au niveau central ñu àggale ko foofa donc yemale euh, ci commune Touba danañ def ces tournées là dans toutes les communes di departement de Mbacké ndax fu ci nekk am na ay jafe-jafe yu ñuy maa ngi maa ngi xalaat fu mel ne yoon wi nga xam ne moo jaar diggante Taïf ak Sadio

mais nous rafler l'ensemble des communes du département de Mbaké. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, avec Idrissa qui, qui nous rejoindre et qui avait eu plus de 100 000 voix, avec tous les alliés également qui sont avec nous, nous avons un objectif qui est yàlla àndee ko atteindre ñuy kanam merci beaucoup.